enitum ɗum agan param to i lambo to i weybati agego taway kaɗo waɗa way mustafa amud la jamba way asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ngi naaw bu nu sant yàlla julli ci yenante bi ñu ngi dikk fii tey ci sunu émission bi nga xam ne moom la ñuy wax ku wal tudd dëkk tey nag ñu tudd dëkk bu mag ak pénc bu mag ñu ngi ñëw fii ci paaleen ci kër sëñ Cheikh Fall Mbawar ñu fas yéene ànd ak moom nag ci jataay bi nga xam ne moom lañ fas yéene ci àndal ngeen miin nu lool ñu fas yéene ànd ñu ngi koy ñaanal na yàlla may ko fan fanu gudd ak wér ak lim nu may ci boppam te nu xam ko bu baax yal na nu ko yàlla mayal wu gudd te fayal nu ko bu baax sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax jaajëf ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen i taxawaay ak seen taalibe ak seen yar ak seen bëgg lu baax ak it nag di seet li jëriñ nit ñi ngeen di ko wax li yàq réew mi ngeen di ci jéem wax ba mu mën a dañ li yonante bi ne loo sib daal lu baaxut boo ko mënee dindee sa doole dindi ko boo ko mënta dindee doole dindee ko soo laam boo ko mënut def na doon ci sab xol nee ña loolu mooy li gën a néew ci ngëm waaye nag gannaaw mënta ñàkk moom réew mi daal day ku ci dul mbañum rusin mbañum res ngay doon ku ci rëgul yàlla ragalu yonte bi war ngaa ragal luwaa yi ñi teg ko luwaa de diis yooyu ku fi defati jubadi ñi teg la ko rek foo dégg ñu ne la yoon daa tege ci kawam daa wàcc yoon waaye boo wari yoon yoon mën la waraat euh, sëñ bi tey ñu ñëw euh, Cheikh Ibra lu ko tuddee Baabul loolu de xanaa sëñ mag bi ci ñëkk ko tuddee la boobu ndax yoonu murid bi mu jaaran daal ci bunt bi mu jaare hmm. dañoo xam ne ne ku bëgg mel ne moom da nga jaare wet gi mu jaare waatal bu yoot min abwaabihaa daal la yàlla wax jaarale bu ngeen bëggee dugg ci néeg jaare leen ko ci bunt yi eh, eh, eh, kii sol bàyyi yuusufa isaaxa bàyyi yaqooba bàyyi yuusufa moom it ba ñuy dem de ar baabun mutafarriq la leen wax da leen bu leen duggee benn bunt na ko wut leen bunt yu ñu jaar la xam naa système la ca bëggan rek waaye ba ñuy jàpp yuusufa lañ jàppan te yuusufaat booba moom it xa doomi baayam doomi baayam ja la bëgg na tànn waat ko ngir mën ko yónnee ca baayam baayam xam ne mu ngi dund ndax booba baayam yonante la yuusufaat yonante la woon bañ leen boole sol ci menn bedd nag moo leen wane ne ku bëgg nag yoon bu baax wu ne la salaami bi islilaahi salikatan la sëñ wax ne suma sabbi li yasaroo daa am yoon woo ku bëgg bëgg a dem ca ngay jaar sëñ bi nag gannaaw ab néeg la te nee na maay bunt bi dañ naan yoonu yoonu sëñ Tuubaa Cheikh Ibra ne sëñ Bamba ab dëkk la bu dee yoon fu mu jëm man mii maay yoon bi sëñ Bambay dëkk ba xam naa loolu nag ca la waral Baabul Muridiina ca la bokk moom de jiituwu fa woon kon jiituwu am na ñu ko fa jiitu ci jëf la wala ci melo wala ci. am na ñu ko fa jiitu waaye xëy na dañoo bokk nu ñu xamee sëñ bi. Mm-hmm. ndax gannaaw moom ba muy ñëw ci sëñ bi dañ koo wëri. da doon wër bëgg koo xam nga xam ne fu ne dem na fa bàmbalee baag fu ne dem na fa ba fu ci ne bu fa fanaanee ne gis ak leeram ëpp seeni leer. Mm-hmm. suut leen mu ne garab bu la suutul du la may kër. Mm-hmm. ba tax ko di di di wëri ba sëñ bàmbalee baag ci sëñ bàmba ji ci dégg rek ndax xam nga daa wax ne. mas nay xibaaru jébuloom. bay wax ne yàlla moo ko moom moo ko ne bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe léegi nag sëñ aadama gi ma sëñ bi yónni woon mu mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ maxtaar Touré fa jaar leeram nga yor won ko ay pexe maxtaar Touré nga yori joor yenn ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yónni ko ci buur Cheikh Ibra topp cay fexe nga xam ne Maxtaar dañ ko yónnoon ci sëñ ba gis fa Cheikh Adama gi sànni mbiram daal di ko ngoy mu won ko Bamba mbër mu rëy sëriñ bi naa ko foo fexe mu wax ko tegtal ya fa moom sëriñ bi won ko li fi moom mu xam na gis na ko ko moom mu daa di fa mbiram joxe xam nga dem man dégg naa sax barki dem koy wax naan Cheikh Ibra yàgg na fa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jafe woon naa gis ndax toog na fa lu payi bi soog koo gis waaye demewul noonu ndax sëñ ñañ yónni woon bañ ñibbisee donc sëñ bi leen laaj ne ndax andu leen ak kenn ñu ne ko dee te boobu jëmm ji ak daanu kat gi mu doon def ak léeg-léeg mu daw ñatam garab bi mu bi mu gënee jege sëñ bi kott ko ba ca kaw mu sëpp jalañ ci suuf ndax ne def na ko addiyam yooye tax nag ñu ne jëmm ju toll nii kat yóbbu ko di ko boole kee koy def nii te gisoo ko mu ngeen jàkkal doo xam nu muy deme léegi nag ñoo taxan ñëw toogloo ko fi béréb sëñ bi nag woo ndaw li moom yàkkamti woon naa gis sëñ bi sëñ bi yàkkamti koo gis ba ko wooloo mu ñëw nag ñu ne ko ah, àndunoo kenn ba mu ñetti yoon mun leen ñu mujj ne ko kan àndal daa mel ne yaram wi daa wérut mun leen na egsi ba mu egsee nag moo wax sëñ bi ne ko sëñ Bamba feeñ nga danaa la weer ne benn benn fanub koor nga xam ne kon koor yàgg naa bàyyi danse boobee nag la ko ne luy say tànk mu ne ko ku ma eggale ci yàlla ko mu ngi soog a dugg ci sama nopp sa xam ne ko bi lool waaw léegi nag ba mu ko ko mu ba bu ma gisoon ku fa jëm mu yóbbu ma fa mu ne ko man topp naa ab tànk ba mu dugg ci sa jëm ji da ma koy génneel ma jàll génneeloo ma ko ma jàppee la ko ba ma koy gis bay wax ji yàggee nag mu ne sëñ bi jàkkaarloo may wax nga di ma tontu sax mooy li ma jaaxal waaye bu ma fi bu ma sab xabaru képp danaa ci liggéey man ba egg ci sun borom sëñ bi mooy daal di aalu ne ma egg si nga ndax may sallallahu alayhi wa sallam fekku ma ko fi waaye fekk ne ci suuf si la daan dox asamaan see ko daan tiim jant beeg biddi bi ci jaare ba jot xaadim rasul diggante xaadim rasul ak rasul sore la yóbbee sëñ Tuubaa nag muy jëwriñu yonente bi te fekkiwul doon ba ñuy bay ba ñooñu jàmbat ca cant ga lool ba mu kii ñi ne ko nag nun de ba li nga yendoo sant Cheikh Ibra na nu Ibra Faal Ibra Faal ji te bu nu xaman yoon moom jaar ba nga sant ko sax cant la ñuy wut nun ñëpp mu ne leen ah, lu ca a néew rek nun lu ca xam baax na mun leen li gën a gàtt suñ diggante ban àndee xam ngeen yàgg na ñi ne ko waaw ah, mun leen nag ban dalee ànd ba tey déedéet mos ta jóge ci gimiñum gi dugg ci sama nopp bi xam nga loolu dana ñooñ seeni xel du ko mën a xalaat na ak nañ yàggee yónni la ci nit sax nga am ci xol yi kon xaw a wedd ci seeni xol te sëñ bi xol lay waxal sëñ bi daal ne leen yélo maa tax li maa tax fi su dóor moom mooy mooy dox fi moom sëñ bi ne leen bëgg naa eh, gan goog suba na lépp mat xam nga da ko daan wax ñi bindub kaamil ci jant bi mm-hmm. ñi defee na loolu la mun leen déedéet nii boo xam ne gayet gaak xadd jaag sàkket jaag lépp ci jant bi lay judd mat ci liir bu judd ci bis bi mat ci bis bi laa bëgg bañ ko defee ba samp néeg ba jant di so mu ñëw julli fa timis ba noppi dujj ci bunt bi ne nañ ko wool Ibra Faal bañ ko woo lëndëm na mu ne ko Ibra Faal dugal ci néeg bi jox ma sàttala ci biir Cheikh Ibra dugg ci biir néeg bi daw di wër rek bu ko ne Ibra Faal da koo gisul man ko maa ngi koy bëgg gis ne Mbàkke ba mu yàggati mujj ñi fi toog ne ko suñ xanaa dangaa fàttaliku ne néeg bi biñ ko sampeeg léegi kenn duggagu fi yaa fi duggoon julli fi bi nga génnee dara nekk mu sëñ bi leen xam naa loolu la ma waxan démb da ci am moom laa bëggan mu leer leen kii xam na ne bi maay ubéer bi mhm. ca la ma waxane ba gis ko ba yut ma ko te déedéet a gën a gaaw loolu te waxuma ko déedéet jëma leen waxan démb mooy mooy loolu nga xam ne kon loolee te ne nit la ca topp nag mooy waxuma li mu ma jëfal de waaye xam-xam bi ci moom mooy daa xam fa ma son borom teg mu teg ma fa ñeneen ñi ci des ñëpp nag boole nañ boole nañ koog leneen luñ booleeg yàlla te moom ba sëñ mag bi rëddeew rëdd ne ku jéggi rëdd yu fekk ma fi sawara dana la yey mag ñëpp dañoo yem fee yendu fa su moom ba mu romb leen di jàll ne ku baax kee toog ñu ne ko waaw dem ñu ko ah, am lu ma xam ne rëdd wooyu mu ne leen rëddu lan ñu ne ko rëdd wooyu mu rëdd daa am lu mu ci mu ne leen lan ñu ne ko dane ku jéggi rëdd yu fekk fee sawara dana la yey gërë doo romb leen jàll bañ ñëwee mu ne sëñ bi ne ko xanaa da ngaa déggul la ñaar neefee dañuy waxut ak yow mu ne ko am na ñuy wax ak man de mu ne ko rëdd waxuñu la ci dara mu ne ko addi ah, ah, ah, waaye man dama la dul seen fenn àjjana di ma la xañ baa sawara man yow laa bëgg bëggul àjjana ju sëñ Tuubaa taxut rëgalul sawara wu sëñ Tuubaa tax mu tàbbi ci sëñ bi nag dellu si fa nit ñi ne yéen ku ne xam naa la dox suñu diggante te kii dara mënta dox sama digg sëñ euh, bi léegi ñu yow. maa gis ne réew mi ñu ci bari dañuy tudd Cheikh Ibrahima di ko wax ba ci ñu bëgg a taggaate wala bëgg kor korkoral seen nit sax dañ lay wax ne la melal ni Cheikh Ibrahima Baye Fall ak. Ah. ba ci président bi sax maa ngi mas a dégg muy def discours naa te Cheikh Ibrahima waxoon. kër nga fay jëf bàyyi wax waaw nga xam ne am na lum ci foraatu moom. waaw loola moom loola moom magi magi magi daari kaamil njëriñ mi la ko Cheikh Ibrahima. Mm. day bis bu set bu fa jaaree di yóbbu addiyaam ki yëf ñu ne ca loola mun leen ci lu ngeen nekk ñu ne ko lëggéeyal Sëñ Tuubaa mun leen lu ngeen lëggéeyal Sëñ Tuubaa ñu ne ko kaamil bi Cheikh Ibrahima ca ëllëg sa mu togg lu ca ñam ba noppi nag nee nañ ko wool ñeneen ci lëggéey bi. ñu woo ko mu leen gaa yi ñii de seenub liggéey egg na yéen ana seenub liggéey ñu ne ko mu ngi nii ñu jox ko saako bi mu bittar ci li ngeen li ma leen joxan fu ngeen ko li ma leen ngi ci biir saako bi mu ñi saako yi ne leen nii laa leen ko joxe ñu ne ko dañ doon jàng di ci tufli mën leen kon nag sama ji ngeen di xeeb man maa ngi nekk ban ah, mu waaw mu togg loolu nag la yi indi woon xam ne dañoo togg defar gaata yi togg ñam jox leen ñu lekk ba suur mu fab xaalis baag la ca des lépp jox leen ne leen diine ji ngeen di xeeb nag mi ngi nekk ba fa yàlla fay wax bàyyi jëf xam nga ñëw inna lazina xaalu rabbana la suma staqaamoo jaay tax mu kii di waaw ah, inna lazina amanot wa amiloo jaay tax mu baax amanooy kese moom bo inna lazina xaaloo du ca topp inna lazina amano wa xaaloo du ca wa wa amiloo rek boo gëmee ba noppi dangay jëf di ci bol dañ ne niyatul ab ablahu min amalihi yéene jullit moo gën a jot jëfam sëñ Cheikh Ibrahima yi am niyatul moom ne ab loxo min amal yi ne bu mu bu jullit yéene ba noppi day jëf ndax ne bu yéene ja doon gën a jot kon yoom yëpp ngeen di ndax yoom bu ne xel xelam a ngi ci jur doom ak am soxna. <laughs> waaw mbokk yi eh, moo tuddee Cheikh Ibra soror bi. waaw eh, eh, loolu loolu ci mën a dellu si fàttali ak diggante sëñ Fallou ak sëñ Cheikh Ibra yaakaar naa ñoom am nañu. waaw sëñ Fallou ak Cheikh moom yàgg nañu ndax. Hmm. ba sëñ Fall daataa gane jamono rek sëñ mag bi Touba gii la neen ñi fi juddu ak xew rek fu ci ne ña juddu dañoo dañuy daan wàcc léegi soxna Fat Jam mii ci mag di taawam juddu na ba jeexal màgg na gane na àddina ba jeexal xaaju suuf bi sëñ Moussa Mbàkke ñoom soo ko gane àddina te bañ daataa gane àddina sëñ bi a ngoon Mbàkke Bawol Cheikh Ibrahima yettib xat foofee ca Daaru Eh, déel di am bis mu ñëw ne ko man de fa ma doon yettee xat suuf sa de gisee naa ca noonu ku fa ku fa ku fa sañcani doom ji fu juddu maay gàddu fa nu gudd sëñ bi ne ko boo fa dematee tibbal ci suuf si yut ma ci ëllëg sa ba mu fa demee tibb ci suuf si yut ko mu ne ko Ibra Faal ndeke yaa ngi xor-xor mu ne ko xam nga ne ay ba dëgg gis xor-xor gisu mu ne ko wan ma barab ba léegi nag mu ne ko duma la jiitu Cheikh mii kon naa jiitu Cheikh Anta topp ci man nga xam ne jiitu la Cheikh Anta jiitu moom ba mu jiitoo da doon xalangu ca eh, lay bi ndax bañ mu takk sëñ bi maam Cheikh topp ci sëñ bi topp ci bañ egg fa Daaru Salaam googu fa fa la eh, yooyu xewe jamono yi fa sëñ falu ganee addinaat Cheikh rek sëñ mag Cheikh Ibra daa ñëw sëñ mag bi ne ko eh, soxna Awa am na gan mm-hmm. waaw maam Awa ne ko ñëwal si ñaanal ko Cheikh Ibra wër néeg bi sikkar ne ko boobu leer jër te ñaanal dana fi jekki bay àtte ne ko nag moom ma fàtte boo demee ci sëñ ma Ka da nga gis ca jasaawu ko mu def ko hmm. daan na dem bay àtte léegi nag sëñ Fall nag xam naa loola dem ci dem ci xelam mm-hmm. te desan nañu leneen sëñ Tuubaa woon na leen ñoom ñaar boole leen ndam ne leen jëfandiku leen te lu ci waay bëgg na ko ci fos mm-hmm. ba sëñ ba sëñ Fall raxasoo jox Cheikh Ibra raxasu mi mu ne ko kël bu du bokk ak borom bi mu ne ko sëñ bi dana lu ñu bëgg ñu fos ko ci mu ne ko boo fosee fosaale nga ba mm-hmm. bi sëñ bi bi jëfandikoo ba noppi Cheikh Ibra daa tibb fa ndab la nekkat maq ko moom ñedd la des ca ndab la fab raxasu ma sotti ci boole naan këppoo këll ba mu ne ko nag damaa bëgg a waxtaan a yow ci sa waa ji ndax seenu ànd yàgg na nun dañoo gane àddina rek fekke leen loolee nag damaa bëgg nga xamal ma euh, meloom ma nga xaman ci moom bu jëkk ak bi nga te xamaat bu mu jëkk mu ne ko ah, sa waajur léppam fi la ko yëndaale mu ne ko yoonu géej géej yooyu bagage yi kay tax may wax mu ne ko yooyu de melam ji daal kaala waaw kaala yu te mu ne ko sa baay de ba muy njëkkaan nag moom dawut kaalaw mhm. kaala yi da ci laaj mu ne ko dama bëgg nga tontu ma ko ci nit dama leen ba ma ko tontu ci daanu kat mhm. Cheikh Ibrahima ko kon nag ma wax la ko fi fu mën a dégg mu ne ko waaw mu ne ko masaalikul jinaan ci ñaataat la ko sa waaju ñaan ci ay fukki ñett ak fukk ak mhm. ko ndax bu demoon ba am téeméeraat wala ba ba dini tukki araf ak ndaw tax mu def ko ca wu mat a dindi dana ci ne mu ne ko déedéet mu ne ko sa léppi bàyyi ngoo gi waaw fu ci ne dafaa jëli woon lu ko yàlla jox rek waaye bañ ko ko mayee yàgg na sëñ bi del si ne jëfandiku ngeen mun ko aman ah de bàkki kii na mu ne ko nu ngeen jëfandikoo mu ne ko ah moom de nanguwut a kii ak man dane ma kël bu du bokk ak borom bi daa bàyyi ba ma jëfandiku ba noppi mu tibb fa ndab la nekk la jëkk mëq ñeddu ndab li fab raxas mi sotti ci boole naan këppoo kël bi sëñ sëñ seex sëñ mag bi ne ko Ibra Faal de amatul coppiku Ibra Faal Mbàkke mii rek sëñ Fall na nag booba laa xam ne man yàllaa mën a dimbali ndax ñaari mag a seerante ci man mu ne nag moom ah, ah kon nag xam na ne ak teel bi Cheikh Ibra ko ci doy ak muñ suufa ko ci doy ab sëriñ sëñ Touba yett yettama ca doy ba jumaa ji eggee nag mu ne nag ko xam sooroor bi nu muy tudd te ba ñuy def sooroor bi tubaab bi dane woon ah, suuf si attanu ko mu ne ko taaw ci sama teel bi mètre yi mu leen waxoon ñu gànt ne suuf si attanu ko mu ne ko maa koy taaw ci sama teel bi du ne rëng ba bañ eggaleet kaamil ba mu yóbbu ca kaw ca la ñu wute essence service sax ndax moo ko ca defe ñu kuule mu dëgal ko ci ñu kuule waale ko ci kaamil bu mu bind <laughs> nga xam ne danoon sëñ Bàmba maa ci jëkk maa ci mujj xam nga kon def na la dam doon wax <laughs> xeer yi bañ koy gasi carrière moo wëri woon xeer yi mm. bañ demee carrière Cheikh Ibrahima lañ mm. toog na fa ba bind fa kaamil dégg naa bu ko Cheikh Ibrahima saa yónnee ndékki yeeg bagage yeeg yëf ba yëpp mat mu ne ko nag jëmmam jalaanam moom laa bëgg a gis bu ñëwee day fab tànk suñ fal teg ci kawam di ba naa ko sa tànk su tuut si fi ne dem na ba màkk mu ne ko waaw yemale rek dana mujj yoon wi góor ak jigéen ñëpp di dem ndax sa sa tànk si fu mu tege du far kay nga xam ne sëñ ko laaj ne ko damaa bëgg nga jàngal moom taalib bi ma ko nuñ lay jàngale taalib bi ngeen moom taalib bi nuñ leen koy jàngale mu ne te mu ne ko damaa bëgg nga leeral ma rek mu ne ko baax daan lëggéeyal sa baay de boo ma saa dem lëggéey ba sama yaram tàng danaa fekkum ñag ma daw ca kaw ñag ba fukki jéegoog ñaar ne leen bu ma dikk jamee danaa tuubiwaat liggéeyaat xam ne yàlla nangu ko mu ne ko am ñag nees cey mu ne ko ku liggéeyal sa bàyyi doo am bàkkaar ku ñàkk bàkkaar dégg du la jam sëñ Fallu dar gi mu ñëw mu ne ko loolu jërtu ragal di jërtu ñag bi de fii ne bañaax la ci janax di duggee janax ji boo ko na du ne bisimilaay du seet wet gu muy duggee te nag ñag ba mu dañ jàll te mosoo gis ñu sekkil ko dégg ci ñàkk ga tax fële jaan ya dëkk di fa takkante jabar ak juri doom te mosoo mosoo ca gis jaan juñ teggee ci juñ dindee ci dëkk ko gis te loola ñàkk bàkkaar a ko def te kuy liggéeyal sa bàyyi looloo koy dal <laughs> yu bari wax na ko. <laughs> Eh, léegi ñu ñëw ci diggante ak nag bi mu defee noonu ba ba ba jumaa ji noppi nag ba mu waxee loolu kenn xamul nu mu koy tuddee mu ne tuddee ko Cheikh Ibra nga xam ne bul ma fàtteem jafeeñ ne keroog suñu àll mii ñaari nag yu mag la rëy nag yi nag yi sareet yi yooyu xewoon. Mm-hmm. nga xam ne yu rëy rëy lañ togg koy añ yóbbu ñu defee ne ca la yem ajjuma ji dellu si mu topp ba ba peeree nag yi jeex mu tàmbalee jënd lu ci booba Tuubaa amul daral Mbàkke la ñuy ji. Mm-hmm. ne nag gannaaw bu fi Cheikh Ibra de màggal ko ngénte ko mu nee na moom moo ko saso waaw. loolu tax yow ngay continuer di waaw loolu nag mu nuyu ca nu jàpp di ko barkeeloo ci li sëñ bi demee waa waa la xanaa bi mu soriyaatiim dinañ ne ñaare ña ñuy àcc seen cëri maam ya dañuy jaar ci yoon wa maam ja jaaroon. te sëñ bi sa yu baax la ñaan waab la naa suriyatan tuddi mu alhamala saale yaa xadima suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustafa taj tayyib yow nag doo ko def àjjuma ji jot da ngay def weer wu nekk. waaw loolu sëñ bee ma ko kenn sëñ Abdoulaye moom ci njëlbeen nga dama ci doon yërëm. Mm. naan ma damaa bëgg nga kii ndog yi rek àjjuma yi dana boo ko waree def danaa la ko sant du tee ma daan léeg-léeg ma sàcc rax ko ci biir ndax bëggal sëñ Aliou dàkk ca bànneexam. Mm. sëñ Saliou nag moo ne ma may naa la jenn àjjuma weer wu ne nga jël ci àjjuma jooja barkeeloo kon mm. waaw. ba àjjuma ji di ñëw nga. waaw ba ji ñëw fi ne moom lañ koy def. ñu togg ko yóbbu bu koor geet sëñal yi da daan bàyyi ndog yi da daan ber ndog yi ber ajjuma yi man mit bi ma koy def am na ñooñ bu koor gi teru ñu naa ma teen koo beraatee tee nga bàyyi uh, uh, ajjuma yi gannaaw ñii dañuy woor ma ne ko ñooy woor dañuy yóbbaale seen koor ci jumaa ja ak seen julli jumaa may damay yóbbu añi ajjuma yi ak ak uh, ndog yi ndog yi sëñ Aliou moom du Seex sëñ Fallou ko waxoon ne ko ñëwal fii. sëñ Aliou sëñ ko woon ne ko sant ko mu toog tuubaa gi ne ko waxuma la Mbawar waaye Mbàkke Bawol ma yeetuma la nga dem toogal fii di samam sëñ di samam Seex Ibra may sam sëñ Touba ne ko lii fii paalin gi moo ko daggan ci euh, wàllu soxna Awa sa ci toolu soxna Awa sa moo guy gaa ngi woon fii ci kaw ci gannaaw ra mu ne ko dama ko defoon addiye Cheikh Ibra te loolee nag du ma ko dindi léegi ma ko mag moom yaay doon sama Cheikh Ibra may sam sëñ Touba moo ko joxoon fii dëkkal ko fi. léegi wax nañ ci ñooñu ak moom ak ak taalibe jàppoo ne eh, yëf yi am néeg daal bu am néeg daal bu rësee ah. da ngay dem ba ca balgand ba nga wut jën wu ko des wutaat gasaat pax mu xóot nag wut jën yi boo ko ca dugalee ñi yenu lee la nga yokki <laughs> ah man kay yow ma ci kii man kay damay laaj rek ginnaaw toog naa ci koo xamante ni ak laaj daana man laaj bi kay li ma yaax laaj jaamur yi nee naa la ñu lay yóbbante boo taxoon ci seetu jàkkaal ak ñoom ndax xanaa bu ci sa jëmm jigéen ñi leen du ca des man kay fii ne boo sukkee banque say tànk dama leen daa wax na du taxa a banque sam xel di te ak ndong li ko borom di wokk lépp xasinu ko conscience borom la nit di def lu munta dé lu munta dékku wala mënu koo gëm mu wokk ndong waaye liñ koy wokk lépp xasinu ko hmm. waaw moo tax dama leen sëriñ bu fi taalibe toog fi yow del ba buñ bankee seen i tànkil bënk ñu seenum xel del tege ci jub tey def tey def luñ mën a nett li ji sëñ laa da ne aras neen am na ñu cay dem waaye dee su fa dëkk ku fa mën di dem fi suuf la la nit ñi nekk mm. boo jógee aras ba ñibbisi daal boo waxee boo defee juba ñu wax ko boo fenee ñu weddi ko mm. gannaaw nag dem foofu boo ñëwee du tee jikko yi nga mën ko amat mm. xam nga ak wilaay ak yooyu na ma yàlla baal du dul dëkk ci nit ne moo ko ndëma yam bu nekk heure ne ak ni nga yore kër xam nga yor yi nu kër góor ñi ko man ñoog yoom yi bëccëg mën nga leen a xàmmee waaye lay tax ñi xàmmee ne ñi xam ne bokkuñu bu ca dëkkan ar bu ne fu mu jëm ñu daw ko Mm. <laughs> neewee karees lay boole mm. waaye des dëkk ci neewi loolee nag a tax mu di la xam ne wi laa yegeeg wàll yi gi nag insaan yi ga waxtu woo ci deltee di nit simple mm. boo jëfut jëfi nit ñi di nit yi kese moom dañ lay weddi sa digg ak sama yàlla nag moom yoonu kenn nekku ci man dama leen maayug yàlla ak jaam bi moom sama yoon nekku ci koy mooy yàlla sama yoon nekku ci waaye yor sa jikkoy nit ku yiw goog bu deltee di insaan yi buy limi naw dem boole la ci man sañ naa ko euh, léegi yaa wax naa koo xamante ni nit kii la déedéet na yaa ngi ci sa borom nga nekk ci bool bi. déedéet dama la ne ni whatsapp yeeg parabol yeeg yooyu. Mm. daanaka bari na lu mu yàq ndax da nga war na toog jàng ko jukki da nga koy ne ca yooyu di ko ci système yi. Mm. te ku moo ku mokkal métier ba jaay ko moo moo moo ñëw yàq sa métier loolu nag ku am bopp doo ko nangu. ñi defe ne yaa ngi ci sa borom nga ne ci sa morom ak ñi ne boo jógee ci bool bi ne ci bi. Mm. wala ca bal ba laa ne warut ku baax nit ki doxalee la diggam ak yàlla ba noppi nga nangu mu dox sa digg ak yàlla moom ko am fu doo ko nangu. suñu borom xanaa ngi lay sant bu baax. yaakaar naa ne <laughs> <laughs> <laughs> nu jéem a sax ci jub rek. Ah. ak jéem a dooni taalibe bi. Hmm. yoon wi daal na li may wax mooy buñ jàpp ne bu fa diw jógee yoon wi yàqu. Hmm. bi fi suñ mag bi jógee dañoo defe ne yoon wi day yàqu suñu Moussa Mbacke ñoom ñëw defar ko ba mu egg ci sëti Sëñ Tuubaa bi Alaaji Baara tàmbalee defar nañ lu baax far mu gën a baax. dama hmm. waxan mas naa ko wax moom ci boppam dama ko ne ah, maison balance bañ koy tabax nit ku ñuul taxut mm. te Barack Obama ngi ci biir mm. yoon wi defe nañ ne bu doomi sëñ Tuubaa yi jeexee mu yàqu te bi nga ñëwee daa gën a baaxaat mm-hmm. wa am la naa suriyatan tuddiimu alhamala saalih yaa xadimu mm-hmm. loolu la sëñ bi waxan amalun saalih la bëgg sët yi di ko def mm-hmm. suriyatan tayyibatan tujaddidu nax jada biir du yeesal yoon wet la santaane ñu def ko te maam suñu Ibrahima jëkk ma ko jëkkoon rabbana ablana min azwaajina wa suriyaatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaaman la waxan daa ñaanan yàlla ay nitam bokk ca gaa yu baax yi te imaamul Mutaqine yooyu di yëfu sax ñaanu ñu bokk ci mu imaamul Mutaqine la ñaanu ñu def ko. ma ne ko nag kon du Barack Obama mais du Barack Obama baara la ak Obama yow mi moom kon nag des ñëpp it wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin gannaaw yoon wi tëjut. Mm-hmm. ku nangoo dox da nga egg ndax dëkk ba taxawut mm-hmm. waaw. kon <laughs> mbokk yi du doon seetaan ak dinu déglu ñu nekkoon fii tey ci kër Serigne Cheikh Fall Mbawar yaakaar naa dégg ngeen sunu ñaari xaaju waxtaan yi nga xam ne moom la ñu am benn bi moom tënk nañ ko ci Touba ak doxalinu jamono ji eh, waxtaan ci bii tamit ñu ngi doon waxtaane kan mooy Cheikh yaakaar naa ñemewuñ fee jóge nekk ba jóge fi te laajunu ko ci Cheikh yibra kon mbokk yi ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di leen joxaat dig nag ak daje boo xamante ni du gëj ñu ñëwaat fii ci Serigne Cheikh waaye yàlla nañ ko fi yàlla bàyyil mu yàgg fii ñu fekk ko njaboot gi ñoom ñëpp te li liggéeyal sëriñ Touba sëriñ bi nangu ko tegal ko ci loxoy Cheikh Ibra asalaamaaleykum wa rahmatullah tuy lamb tuy wey bati agge go way kadu wada way mustafa la jamba way